danañ ko xeex xeex gu tara tara tar ci réew mi. mission bi nga xam ne nag dañ ma ko santoon ma di ko liggéey fii ci nag bi ñu commencé installé wu fii ñu nekk nii ba ni ñu présenté rapport boobu ñu fi génne woon fan yële mission la boo xam ne dafa doy waar lool metti lool ndax bu fekkee dangaa ngaa bëgg a songu ger. ak fraude yaa ngi songu lu doy waar lu metti ndax ñi ci nekk ay boroomu alal lañu boroomu ay milliards lañu waaye aussi yaa ngi songu li nga xam ne dafa doy waar te complexe parce que la corruption combat la lutte contre la corruption maanaam guerre bi alal jiñ ciy jëlee moom la jël di ko xeexe ñiy xeex corruption. boole ci nag ñi nga xamante ne tamit. dañoo nekk ci réew mi di liggéey réew mi jàppale leen jox leen sécurité jox leen infrastructure jox leen sax ay avantage yenn saay waaye ñuy wëlbati ko nag lempo gu ñu war a fay pour réew mi continuer di màgg di defar ay infrastructure tabax lu ne ñu bañ ko fay ñooñ tamit dinañ ci taxaw taxawaay gi wër ak ñi nga xamante ne dañ koy jël di ko yóbbu bitim réew ci anam yoo xamante ne warut. te loolu dafa tax liggéey bi metti délicat xam nga ne Mouska la fu mu am 59 ànd ak yéen ñuy liggéey fii ñuy wax di la waxal loo deful la dëkkal foo dëkkul bés bu ne di la ŋaañee te buñ la ŋaañee ñu ne Sénégal la noppul de bul wax dara de bul tontu waa doo tontu parce que tontu yu bari baaxul waaye boo waree seetal sa der it nga seetal sa der ndax sunu yaay Aïcha mi nga xam ne moo nekkoon soxna yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam bañ ko tuumaalee aaya yàlla dafa wàcce aaya seetal ko. bëgg nañu tamit dooleel ñi nga xamante ne fépp fu ñu fekk luy yàqu. te muy yàqal Sénégal dañ koy wax waaye ñu yàggalee na noot yàggalee na fitnaal te ba mënuñoo wax di xool ni nga xamante ne ay nit rek lay jëriñ waaye luy lor Sénégal la muy ay lanceur d'alerte ñu gën leen a protéger ba fépp fu ñu fekk luy yàqu ñu mën ko wax te daru leen ci fekk. li ma bëgg a wax rek mooy aventure bu doy waar la woon daal ñu ànd ko fii li ñu gën a neex nag mooy ni nga xam ne wóolu ngeen ñi yéen sénégalais yéen ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew. jot nañ fii lu ëpp junni ak juróom-ñett fukki plainte ak dénonciation plainte mooy li nga xam ne bu dee guerre bi dañ laa laaj xaalis mu metti ci yow danga ko subir nga nga def plainte bu dee guerre bi la bu dee bu dee kii la aussi dénonciation dénonciation mooy loo xam ne lii ñuy mbambe Sonko ni di coow fan yëpp maa ngi yëgle ne obligation de réserve depuis ñu voté convention de Nations Unies contre la corruption convention wu Union africaine ak protocole de la CEDEAO maanaam charte yi nga xam ne dañ koo tënk ci bitim réew pour di ci xeex ger ak lépp luy forot ak yooyu ak lu mel ni loolu ak jalgati alalu réew mi ak euh, def ko noo ko warte def ak yàq ko maa ngi ne convention yi daf ñoo sant ñuy dénoncer. bëgg nañu tamit ñii nga xamante ne dafa am ñu am ñu jël alalu réew mi mënuñu ko def seen tur. di ko def ci seen tur ñeneen ay xarit wala ay mbokk wala ay am di jàmm yoo xamante ne pour bañ rek ñu laaj leen xaalis bii ngeen liggéeye lii fan la jógee mu mujjee feeñal luubal muy ay prête-nom dinañ leen waxtaan bu ñu waxtaan ak ñoom pour ñu mën a feeñal seen bopp bu ñu feeñalee seen bopp duñu leen toppee dara non seulement duñu leen toppee dara waaye bu dee jël nañ alal loolu tax nañu jël alal delloowaat ko ci réew mi ñun dinañ am loo xamante ne dañ ko leen koy ciy jox pour gën leen encourager. dafa am ñun ñoo xaw a rek Sénégal boo demee Afrique yëpp ak ci àdduna bi yëpp dañuy am ay loi ci lool luwaa bu njëkk bi mooy loi boo xam ne dañ naan loi bi bu informer leen citoyens yi dee leen wax ak citoyens yi par exemple boo waree wut bulletin de naissance extrait de naissance wala nga war a wut certificat de mariage nanga fekk yow citoyen ñu defal la benn benn kii benn procédure ne lii ngay fay bu ñu lii ngay fay bu fekkee ne 1000 francs nga war a fay boo ñëwee bu ñu la laajee 5000 di nga xam ne dañ lay nax waruñu la laaj 5000 dem naa Arabie Saoudite gis nañu bind ay ay lakos am ku sol lakos ñu bind nii ne chariot bi mu yor nii 10 rial nga ciy fay 10 rial mooy cent xam nga kooku kon du mën a ger donc loi yi loi yoo xam ne citoyens yi dañ leen di jox information pourtant réew mi liggéey na liggéey bu am solo ci allègement procédure yi procédure yooyu yëpp bind nañ li des nag mooy nit ñi xam soo jógee di wuti permis de permis wala ngay wuti lu lu mel ni euh, permis pour tabax wala leneen dangaa war ñu informer lool dañ ci war a am loi mais loi bi ëpp solo mooy loi bi fonctionnaire bi nekk ci kër gii ma par exemple yaa ngi OFNAC gis nga ne nag gii dañ fiy jalgati da nga koo war a dem waxi ba pare ñu protéger la fay la teg maanaam boo gisee ñu jalgati nga ne jalgati nañu cent millions bu ñu bu ñu jàppee kooku war a feeku 100 millions ñu dind ci aslëf jox la ko États-Unis noonu lañuy def boo demee ci dëkk yu mag yëpp Afrique gi du jeex donc loolu dafa xaw a néewal doole obligation de réserve obligation de réserve fan nga ko war a amee mooy nga am loyauté loyalisme loyauté envers les institutions yow bul dem génn secret boo xam ne day yënga réew mi secret d'état la maa ngi ko wax toujours bu kenn compté ci man pour ma secre secret d'état yi nga xam ne dama war a moom ma wax ko am na nag ay secret contre l'état secret yi nga xam ne du secret d'état de ay secret contre l'état loolu beneen affaire mais damaa bëgg a wax rek ne obligation de loyauté ak yooyu yëpp léegi dafa évoluer kon nag ñun nañuy xam ne loolu dafa dañu war a am raison garde ba pare di def ni nga xam ne vraiment mooy mooy li war donc plainte yooyu ak dénonciation yooyu dafa tax ñun suñu xol sedd ci population nit ñu wóoloo di ñu ñëw di ñu dénk seeni frustration ñun tam lu ñu ca mën ñu di ko ko def fi mu nekk ni ñu ngi ci enquête yoo xam ne maa ngi fi bàyyi enquête yoo xam ne enquête yooyu vraiment bu ñu ko continuer dina baax ci réew mi torop parce que dina tax kenn dootul def lu mel noonu. rapport yi nga xamante ne tamit dañuy jël ay corps de contrôle sampleen ñu mel ni IGE mel ni Cour de comptes mel ni nag ñuy dem defi ji ay rapport rapport yooyu war a dem ci procureur sénégalais yi nga xamante ne ñoo soxla lu leer ci nu ñu saytoo seen alal mënuñu ko gis loolu bu soobee yàlla dina jeex ci réew mi ndax fu rapport génnatee ci Cour des comptes génne ci OFNAC askan wi dinañ xam rapport bu lu lu ci buñ ko dee yóbbu ci yoon nag dinañ ko yóbbu ci yoon bu dee am na ñu ca tuumal loolu yoonay wax ndax taqee nañ ci wala wuñ ci. léegi nag li nga xam ne moo ci am mooy ñun xeex bi nga xam ne dama man dama ko mës di xeex pour toujours ak yéen ñi nga xam ne da ngeen di xeex ak ñi fi àddina bi yëpp di xeex ger di xeex yàq di xeex loo xam ne nii dëppoowul ak li yàlla gërëm ndax li yàlla gërëm mooy alalu réew mi alalu ñëpp la ñëpp ko bokk kenn waru ko yàq dañ ko war a sàmm. xeex boobu xeexu responsabilité la xeex la pour am ci yàlla am ci yont bi alayhi salaatu wasalaam xeexu principe la combat la boo xam ne aussi dafa baax nekk combat boo xam ne société démocratique da koo war a am société démocratique du rek démocratie institutionnelle boo xam ne mooy dangay ngay fal sa dirigeant yi dangay am assemblée nationale ku lay représenté yooyu dafa nekk société boo xam ne dañuy dàq lu lu lëndëm pour lu leer dañuy dàq jalgati pour ngay def lu jub koo dañuy dàq ñàkk a sell pour lu sell loolu yëpp dafa nekk pour bâtir ko pour tabax ko nag ñun ñëpp a war a ànd am lu ñu gëm gëm gi nag dañ koy wekk ci ragal yàlla parce que boo ragalee yàlla dafa am loo xam ne doo ko def parce que boo wetee di gore boo wéetali ko di nga gore loolu nag mooy li nga xam ne nii moo moom of nag dafa nekk li nga xam ne ñëppay ñëw di jooy comme li ñuy wax mur de lamentation boo gisee man ma jël ne damay ñëw pour def recours li ñuy wax recours pour excès de pouvoir nekkul porte plainte président de la république déedéet nekkul yàqal ki ñu fal mu topp mu war maa wutu parce que ku ne foo ne loo yor yàllaa la ko jox yàlla ma la koy jox jaarale ko ci nit ku mel ni président de la république day xëy jël ko ci yow jox ko keneen te bu ko joxee ci keneen aussi kooko danga koy ñaanal mu am ndam ca lool waaye dafa nekk combat wu principe rek ndax bu lépp loo xam ne affaire jalgati la baaxul du ma revenir ci détails yooyu parce que dafa waxtaan woo xam ne dama koy am ak pour mën ci wax dugg ci détails yi damay annoncé rek léegi na loolu lu may def la bu ma ko defee dina baax pour réew mi bu ma cour suprême ne amuloo dëgg baax na bu ma nee am nga dëgg baax na li muy indi rek mooy réew mi droit administratif bi nga xam ne dafa am solo ci réew dina avancer démocratie bi avance ku nekk it xam ne boo yoree réew ngay président de la république doo buur doo bu mu itam da nga war a jubal da nga war a leeral li ngay def da nga ko war a teg ci charte yi xam nga ñun li tënk réew mi yëpp ñun dañoo li ma professeur Serigne Diop doon jàngal dañoo inventé état pour mën cee régler ay problème yan problème lañ ciy régler mooy li ñu bokk yëpp dañuy tudd ne état ko moom lépp li nga xam ne ñun ñoo ko bokk te dañ ko war a dañ ko war a aar dañ ko tuddee état ko moom état boobu nag bu ñu ko inventé ba pare ñun ñëpp dañuy bokk di sellal nañ fa nekk rek la ñuy def donc loolu muy loo xam ne dirigé wu ma ko ci président de la république dama koy def pour mu nekk loo xam ne yoon la leneen li ci desit aussi mooy dafay xaw a doy bu dee of nag bi nga xam ne kuy jooy fi ngay jooyee of nag mu am loo xam ne dañ koo jalgati mu jaar muy loo xam ne man maa ko maa ko maa ko ci man la dal of nag bañ a wax dara loolu itam day justifier lu tax ma di ko def beneen bi ci des mooy maa ngi leen di yëgal ne lii ñu wax fan yi yëpp ci man itam du lu am solo parce que man nag du ma tontonteeg ñi nga xam ne waruma tontonteeg ñoom waaye dama leen wax sànq ne leen am na tuuma yoo xam ne bu fekkee ne dangaa nekk ñu ne dangaa ndax président bi may nommé fii daf ma ne ñeenti weer laa bañ nomination boobu waaye daf ma ne dama lay nommé fii parce que yow yaa fi integre yaa fi da nga compétente da nga am expérience kon nag yow laay yóbbu pour nga sasal ma of nag bañ ma nomee ba tey ci loolu laa nekk di ci góorgóorlu